salaamaaleykum mbokk internet yu suivre Sénégal 7 ñuy ñëw di leen nuyu di leen indi seen premier numéro ñuy wax ci waxtaanee ci wàllu sport lépp lu ngeen xam ne bëgg ngeen ko ci sport mun ngeen ñoo ko désormais sur Sénégal 7 tous les lundis tey ñu commencé actu sport ak mercato des Lions bu ñu jugee ci mercato des Lions dinañ dem ci loolu nga xam ne mooy actu foot bu ñu jugee ci actu foot dinañ dem ci reprise de championnats européens ñu dooree ak. mercato des lions dañuy dem ca championnat bu France championnat bu France foofu gis nañ ne ci FC Sochaux ñoom euh, signé nañ kii di doomu Sénégal bii di Abdallah Ndour donc ñi nga xam ne ñuy fans Abdallah Ndour ren mën ngeen koo xaar ci FC Sochaux te xam ne foofu lay football après Abdallah Ndour dinañ dem ci Amara Bay bi Amara Bay bi moom euh, rejoindre na Casa Open ancien club bi nga xam ne moom la Moussa Wagué nekkoon foofu lay jouer championnat am ren bu ñu jugee ci moom dinañ dem ci ki nga xam ne moom mooy Famara Famara Diédhiou euh, moom mi ngi woon championnat Angleterre Premier League foofu laa nekkoon Bristol City mais ñu ngi gis ne saison bii di ñëw euh, Fenerbahçe taxaw na pour nga xam ne mu transfert am parce que foofu mu nekk ca Bristol sa Bristol City salaire dafa xaw a élevé ba nga xam ne club bi warut ñu mën ko téye toujours ca Turquie la ñuy des ak Mbaye Diagne Mbaye Diagne nga xam ne mi ngi yoon daaw euh, club Bruges ca Belgique. après penalty boobu nga xam ne moom la raté ca Ligue des champions ba mu juraloon ko ay tolof tolof ñu ngi gis ne Galata Galatasaray di ancien club moom bi mu jóge woon dem foofu ñu ngi koy mayaat beneen chance ba entraîneur bi boole na ko ci équipe bi nga xam ne moom mooy dem stage Euh, pour pour pour championnat bii du ñëw bu ñu jógee ci Mbaye Diagne dañuy dem ci kii nga xam ne moom mooy Mbaye Niang Mbaye ñi nga xam ne ñu ngi doon dégg fan yi ay rumeur ñuy wax ne Olympique de Marseille am nañ ay waxtaan nañ ñoom ak ren bu juboo pour jaay ki nga xam ne moom mooy euh, Mbaye Mbaye Niang mais bu ñu sukkandikoo si suñu dernière information yi ñu jëlee ci RMC Sport ñoom ñi ngi wax ne amul benn benn accord boo xam ne Olympique de Marseille def na ko ak kii di club bii di ren pour jaay ki nga xam ne moom mooy Mbaye Niang bu ñu jugee ci Mbaye Niang dañuy dem ci Gana Gueye Gana Gueye di milieu terrain Sénégal mi nga xam ne moom tamit mooy millier terrain fee ci Paris Saint-Germain moom it gis nañ ko Paris Saint-Germain boole ko ci liste bi nga xam ne mooy liste départ mu doon xam ne jaaxal nañu bëree bëree bëree bëri parce que Gana Gueye doon na joueur boo xam ne Paris topp na ci lu yàgg mu ñëw defagul benn saison bu jeex ñu gis ne Paris boole na ko ci liste bi nga xam ne moom mooy départ mu xaw a jaaxal sportif yu bëri mais biñ ko tegee ci list bi pour jaay ko gis nañ ne Wolf bi club benn club boo xam ne ca première ligue la nekk ñoom taxaw nañ pour jënd ko pour remplacer ki nga xam ne mooy seen milieu terrain di Robert Naves koo xam ne moom tamit Manchester United dañ taxaw ak Tottenham pour génn ko donc il faut ñu trouver ko benn remplaçant ci lañ tourner vers sa Gana Gueye buñ jugee ci Gana Gueye dañuy dem kii di Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly muy euh, le roc de l'équipe nationale bu Sénégal di défenseur central di Napoli comme tamit euh, gis nañ ne Liverpool am nañ ci benn taxawaay boo xam ne bu am solo buñ ci taxaw ba proposé nañ bii di euh, Napoli soixante millions d'euros pour génn kii di Kalidou Koulibaly mais dañ ko booleel ak seen attaquant bii di Origi moom lañ ko booleel pour euh, pour pour mun ko jënd ñoom Naples li ñuy laaj mooy cent millions d'euros la ñuy laaj pour mun a séparer ak kii nga xam ne moom moo di Kalidou Koulibaly mbokk internet yi di lañ leen indiloon tey ci mercato des Lions buñ jugee ci mercato des Lions dañuy dem ci Actu bu ñu demee ci ActuFoot dañuy ñëw ci équipe nationale bu Sénégal équipe nationale du Sénégal fédération bi mi ngi xamal ne dinañ changer waat ay mayo te bii ba dañuy dem ci marque bi ñu naan Puma. bu ñu duggee ci changement de mayo bu équipe nationale dañuy dem ci classement CS des joueurs les plus chers de la planète boobu nag kii di Sadio Mané di doomu Sénégal mi ngi occupé septième place. ci classement boobule ñu ngi xamal ne Kylian Mbappé di doomu France moom moo occupé première place ci joueurs yi nga xam ne ñoom ñoo gën a cher ci planète bi fu mu toll nii bu ñu jugee foofu dañuy dem ci reprise championnat bi comme ni ñu ko xamee championnat yi xawoon na fi taxawoon na ndax feebar bii di Covid 19 moo taxoon championnat yu bëri dañ ko arrêté mais dañu comment bi bi mais gis nañ ne championnat yi ñu ngi ko commencé reprendre ndànk par ndànk. boo xoolee ci sa Allemagne Bundesliga ñoom commencé nañ parce que jot nañ fi football trois journées bu ñu jugee ci Bundesliga bi nga xam ne ñoom reprendre nañ nañ constaté constaté nañ ko Italie nga xam ne mun nañ wax ne ci Europe moom mooy pays bi nga xam ne moom la mbas mi gënoon a laal ñoom it ñu ngi programmé nañ pour reprendre seen championnat yi euh, annonce boobu seen ministre du sport moom moo ko ne moo ko xam ne ni di wax ne championnat italien dina reprendre le vingt le vingt et un juin moom mooy nekk ay journée de reprise bi jugee foofu dañuy dem Espagne Espagne championnat bi gars yi namoon nañ ko trop ndax euh, gars yi gëj nañ seetaan Real Madrid gars yi gëj nañ seetaan FC Barcelone ñi ñuy xamal ne ñoom it dinañ reprendre seen championnat incha allah le 11 juin 2020 euh, ak derby boo xam ne ñëpp a ngi koy xaar maanaam di di loo xam ne ñëpp a koy xaar ci diggante FC Séville ak Betis Séville. waaw ginnaaw Bundesliga ak Liga ak Serie A ñu te ñu jeexalee ko ak championnat Angleterre bi nga xam ne moom it war na reprendre championnat Angleterre bi nga xam ne moo euh, Liverpool moo ko jiite ak doomu Sénégal boobu di Sadio Mané ñoom war nañu reprendre euh, le 17 juin. nañuy reprendre seen championnat. dañuy terminer suñu émission bi ak résultat championnat bi nga xam ne moom moo di championnat Allemagne nga xam ne jot naa reprendre ci samedi ci samedi bi passé. Bayern Bayern Munich mi ngi doon tase ak Leverkusen Bayern Munich daal di daan Leverkusen 4 buts à 2 deuxième match bi mu ngi doon opposé wu Hoffenheim ak for ñu ngi defoon ñoom dañoo témboo deux buts partout ñu jógee foofu dañuy dem ci Leipzig moo doon lanal Paderborn Paderborn ñoom tamit ñu ngi def match nul un un partout bu ñu jugee foofu dañuy dem ci euh, match bi doon opposé toujours si samedi bi kii di Metz moom moo déplacé wu foofu sa Eintracht moom mu gagné mu gañe euh, mu gagné ko deux 0 bu ñu jugee foofu dañuy dem ci euh, Dortmund Dortmund moom moo doon moom moo doon recevoir erta mu door ko 1-0 ci dimanche bi équipe yi doon daje mooy Werder Werder de Brême moom moo tasee ak Wolfsburg mais Wolfsburg moom moo ko gagné 1 but à 0. bu ñu jugee foofu dañuy dem ci Hambourg Hambourg moom moo recevoir woon kii di Cologne ñu ngi tembo 1-1 bu ñu jugee foofu dañuy dem ci Union Berlin moom moo daloon Shakhtar bi nga xam ne foofu la doomu Sénégal bi nekk di Sané ñoom ñi ngi match nul 1 nga xam ne ñoom ñooy suivre championnat boobu di championnat Allemagne mun nañ mun nañ donc xaar ne Hoffenheim euh, dina taseek Leipzig euh, le vendredi 12 à partir de 18h30. buñ après buñ jugee ci vendredi bi dinañ dem ci samedi bi samedi bi euh, Dortmund mi ngi mi war a dalal ki nga xam ne moom mooy Dulsfort mi ngi war a am euh, à partir de treize heures trente buñ jugee foofu dañuy dem ci koloñ koloñ moom moo war a dalal kii di Union Berlin. bu ñu jugee foofu dañuy dem euh, ci euh, euh, Wolfsburg Wolfsburg moom mooy waral dalal Fribourg toujours samedi à partir de treize heures trente. waaw loolu lañ leen indiloon ci résumé bi nga xam ne moom mooy prochain journée bu championnat bi di Allemagne di leen wax tamit nii la Grand Bayern Munich moom dina football dimanche moom ak match moom ak dina football samedi moom ak Mönchengladbach à partir de seize heures trente yéen ñi nga xam ne yéen ay fans Bayern de Munich kon mun ngeen ko xaar samedi à seize heures trente moom ak Mönchengladbach incha allah.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 par sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.